ci publicité yooyu nga xamante ni moom lañ leen wan léegi waaye mbokk yi ñu ngi jëm ci grand combat bi ci diggante caatu limousine ak yi nga xamante ni moom mooy Mame Balla Junior balaa arbitre bi di siffler tamit ñu ngi ki nga xamante ni moom mooy Amet Dem waaye bala nga wax libéral ma booy bii. booy am moo tudd. maay Dangote numéro 2. Dangote maa ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay bu baax. Uh-huh. di nuyu sama yaag sama papa di ñaan jàmm yàgg ci réew mi. di ñaanal sama copain yal na ko yàlla may ndam lu rëy. Mm-hmm. waaw mais di wax ni booy nañu ñëw ñu bëre ñu bàyyi tamaate bi. koo bëgg a bëreel. maag Amadia ah, fële. yëmbal ah? waaw waaw. mais buñ ma mënul jël man si garaan laay laajte de ay ñoom Papa Boy Djiné naa leen. ñoom nga bëgg. waaw ñu may ma chance. samay morom nanguñu maa le 7 mai laa gëj a bëre maa papa baari baari boo léegi mënu maa bëri. du yoon loolu du yoon man xale laa damay diw mboo damay bokk ci làmb. waaw te maa yaakaar da man bëru goox laa waaw di ñaanal réew mi yëpp yaa ma yaago quoi. yow suñu waay nga. waaw maa yow ñoo far yow Bamba Dia. jaajëf kooku moom mooy dàngate maa ngi koy jaajëfal mais Ahmed bu caaro yi xam naa ni balaa ñuy ñëw ci mbër ñu dem ci grand combat bi. ci diggante caatu limousine ak ki nga xamante ni moom mooy Mamballa Junior Mamballa Junior moom moo nekkee à droite waaye caatu limousine moom moo nekkee à gauche ginnaaw ba ma la nuyoo. waaw ma maa ngi lay fay di la ziar vraiment di am mbégte ah ñëw si Bantamba TV am contentement bu baax nuyu waa Thiaré ñëpp supporter rek fan si club bi. vraiment maa ngi bëggee ñëpp. namm nan ma mais maa leen raw. waaw gars yi dañu laa namm. waaw mais maa leen raw gladiateur moo si ruxam rek. waaw dañuy dañuy reporté combat bi. bu ko defee ñu doog a ñëw. la. arbitre bi mi ngi laaj ay zizam arbitre baa ngi laaj ay zizam nee naa la tey mu ñang production moom moo woote arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé na ko 19 heures 28 minutes ci arène nationale tey mooy samedi le 29 juin 2024 ndeysaan nga xam ne fi mu ne géwël yi rek ngay dégg. waaw affaire bu doy waar. waaw moment bi day nekk moment bu compliqué. mais fi mu ne nii sa xel du dul du lu dul daan. bilaay daan rek ngay gis. ndeysaan instant bi instant bu doy la. mais gis nga caatu limousine ni mu taxawee. waaw taxawaay bi baax na. taxawaay bi baax na. taxawaay bu baax la combat bi combat bu gaaw lay doon. combat bu gaaw buñ ja buñ dalantee mu jeex. noonu la demee xam nga maam Ba la tamit champion la. waaw champion la. Mhm. ndeysaan bu ñu dalantee mu jeex. jàppante rek mu jeex. ñoom ñaar ñu ngi Caatu Limousine moom moo nekk écurie Kaay Baax waaye Mame Balla moom moo nekk écurie Pikine Mbooloo ñoom ñaar ñu ngi léewtoo Caatu Limousine moom moo njëkk a tooj moom moo cokkaas dañuy xeex Mame Balla Mame mi ngi dóor ay coup muy dóor dafa mel baax na ñoom ñaar ñu ngi léewtoo gisuma Sofia mais fi na mm-hmm. ñoom ñaar ñu ngi xeex. ñaari ndaw la. ñoom ñaar ñu ngi xeex. waaye combat day neex. day neex ñaari xale yi koy bëre la jàppante na nu kum daje. ñoom ñaar jàppante nañu. combat xale lii lay mel. waaw day neex. day neex. xale day neex. te lamb. waa lamb ngi nii de. laay kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp. Mame Balla ak Thiatou Limousine Mame ngi dóor ci suuf mais ku yooyu muy dóor am na lu muy def. am na lu muy waaye day day feeñal buntu. day feeñal buntu mais Mame Balla dafa a def ndànk. ah waay ah, ah moom kut kut dafa bëgg a jeexal combat bi. moom la am moom nii la moom. day gaaw day gaaw. <laughs> waaw dafa am mbër yoo xamante ni mënuñoo jàpp taxaw noonu la demee ma ne ko cin luy baax la cin luy baax la ku ci mel ni Ama Baldé mënul jàpp taxaw noonu la demee nag ku ci mel ni Ahmed Dem mënul jàpp taxaw noonu la demee nag ah. bëre rek bëre rek di ñaanal Ama Baldé yàlla na ko yàlla may ndam ndeysaan xam nga ville de la Pikine bi ah ñun ñëpp ñoo ko bokk jaaree ginnaaw raay benn la ak Pikine dëgg la bëgg na ko bëgg na ko luy xew da luy xew la am na ndaanaan la at bi is ka bañul saagay mooy papam asgay ñu xool la at bi wax non jël la am na ah. ñu doomu Caaroy la doomu Pikine la. kan moom moom waaw moom Mame Balla moom Mame Balla si ñoom askay mooy papam kon naka te da ngaa faroon ci suuf. waaw damaa faroon nag <laughs> papam sama xarit la. ndeysaan kon Mame Balla daan na. Mame Balla daan na jël waa Pikine ñoo daan. bilaay ndeysaan waaw. xam nga Pikine ak Caaroy benn la. ak ginnaaw raay Pikine ak Caaroy benn la ginnaaw raay. voilà jàpp poste. voilà noonu la demee ndeysaan ndeysaan ñoo ngi koy félicité bu baax. mais waaw maa ngi maa ngi kontaan ci sa toog fii. waaw mais ñoo la a kontaan. waaw ndax yow da ngaa bokk ci lamb te da ngaa war a am combat nag. non da ngaa war a bëre. waaw da ngaa war a bëre. li ma waxoon rek laay waxaat. nee naa leen retour de gladiateur. dafa ñëwaat dafa ñëwaat def retour. ñëw defaat carrière bu def naa 23 combats. waaw 23 3 défaites la am. waaw yaakaar naa ne def naa palmarès bu rafet. rafet na peut-être nag dama amagul. pour fayeeku xaalis millions yi samay morom di fayeeku dëgg la mais yàlla moom may suturaal ma am chance ndax loolu sant yàlla la bilaay dëgg la sama yeexaay du ak cuune coobare suñu borom la voilà coobare suñu borom la dëgg mooy li may faral di wax rek waaw bu yàlla ne waaw man gëm naa ne lépp dina changé léppay changé incha allah dina changé wax na ko la demee bu yàlla ne waaw léppay changé léppay changé mais kan moo nekk sa xel noo fi mu ne nii fils de Balla daal na ñëw ma may ka chance Ahmed Fils Balla diisul. parce que champion la naanaan li li muy neex na ma comme te nee na dafa xew. da ngaa gis da ngaa gis li muy bëree. non da di daf maa neex. da di champion. neex na ma. ndeysaan ma bëgg koo may chance rek. voilà noonu la demee mais nag ñun ñi léeg-léeg da nga leen di tudd. waaw ñu yaakaar da nga leen waajal wala wala nga ñàkk leen. ok bu noonu. def na 23 combats. waaw waaw maa nga victoire. la dajeeg la fa demee bu ma ko laajee bu mu si def tiitar bu si nganda ngandal. lamb la rek. na ñëw nu bëre. di encouragé sama boy bi sama poulain di ko félicité muy Batika 2. ah Batika. sama poulain la mu nekk bu xale bu yaru nag. waaw la. xale bu dégg ndigal moo tax ñu bàyyi sunu lépp. ñëw gunge ko. ndeysaan ñoo ngi koy ñaanal nag yàlla dem ba def doon droit des arènes. di ñaanal papa ka numéro 2. Uh-huh. moom joxe cër la ku joxe respect la. sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di di gërëm Assane Taal be Seex di gërëm Bamako ñooñu si man lan bok waaw waaw voilà sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp jaajëf mais Batika Batika maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay bonjour bilahi mina seyda rajo bismillahi rahmani rahim ginnaaw bi nu sante yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di ñaanal bépp kilifa diine yi nekk si àdduna bi di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee di ñaanal sama papa yàlla na fi yàlla bàyyi bis kanam di ñaanal bépp mbooloom jullit ñi ñaanal kilifa diine kilifa aada yëpp waaw. mais ñëwul ñu ci li nga bëre. waaw li ma bëre boobu bëree gu ma sax lu ma bëree du dara. parce que loolu. ku si mel ni Ahmed Deme li may bëre nii ak Bamako Mansour ñoo ma koy bëreloo mais man sama bëre dëgg bëree gu ma ko. sa bëre lan la. non déggoo li ma la wax na yàlla li may li may bëre ma bat di ko bëre kontaan xaaj ba bëree gu ma fii. li may bëre nii yëpp barke alxuraan lu ma digal la ma koy def mais buñ ma bàyyee rek kenn daa ko maa bëre te digal bii ñu may digal ma dama see gis njariñ parce que ñoom samay grand lañ samay daanaka sax samay papa lañ. la mais Thiaro ay ndaanaan na fa de. waaw loolu la moo tax ñun ma mënu ma lu dul topp seen ginnaaw rek da damaa ñëw fekk leen si aar bi. te booy bu ndaw laa ñëw ñu def ma comme seen borom di ma oo téléphone nan dem saal. bi mooy sa ñaatem combat. bi mooy sama quatrième combat quatre victoire. quatre victoire waaw. Ah, waaw ñoom dañ may yee fajar jugal ñu dem entraînement ànd ak man dañ maa yëg barke alxuraan te booy bu ndaw neexoon duñ ñëw sa stade mais sa combat dañuy sonn si man moo tax ma ñëwee sama combat dama koy assuré barke alxuraan man aw ma seen fay ba ma ko Papa Kane Ahmed Dem Mbaye délégué